dagaj dagaj ji Real Betis nekkee woon ci terrain bi moog mook Barcelone ah, dagaj dagaj jooju teewul nag ah, Barcelone mujj naa am ndam ci goney ah, Betis Séville gi nga xam ni taxawoon nañ temme pour dund match boo xam ni bu historique lay doon ci seen wàllu carrière football waaye trophée après Messi loolee Barcelone moom lay wut fi mu toll nii nag daanaka li ci des a bëreetul ndax ma nga ca njob baxtaloog final ba ci digganteem ak Real Madrid gi nga xam ni daanaka xaar na bu baax a baax Barcelone bu ngeen xoolee match boobee bari nay occasion ki njëkk kër gi mooy doomu Pologne bi ni Lewandowski nga xam ni ah, dugal na ko ah, ca première bii ba mu nekk bii boo xam ni ah, biub espoir la wa biub espoir la waaye nag bi nu footballee lu toll ci juróom-ñaar fukki minutes a juróom-ñaar la ki nga xam ni mooy Fikir Fekir nekk koo xam daanaka moom it doomu français la égalisé Barcelone ñëwaat quatre-vingt-treizième minute jaxase kër gi daal di dugal Ansu Fati moo dugal bit waaye nag loolee yàggul cent un minutes Lovren daal nekk deux partout deux partout yu nag ah, ca la mbiiloo mbaacoo ba nekk ñoom ñaar kenn comme ci man di doon ah, ci ñaari équipe yi ah, bëggoo perte match boobee di wut li nga xam ni mooy série penalty série penalty nag nanu ko amee football na lu toll ci juróom ñeen fukki minutes lu topp ah, tegaat ci ah, ci tar trente minutes maanaam ci gàttal ah, quinze quinze quinze quinze yooyee nag moo leen yóbbu li nga xam ni mooy série penalty yi nag ñu daal di taxaw série penalty yi boo xam ni Barcelone football na wala boog njëkk naa dóor dugal ki nga xam ne nag mooy waaye gone Betis Séville ñoom ñaari bii la ñu rate ci li nga xam ni mooy série penalty yi boobee donte tamit am na lu ñu doon réclamer ci bal boo xam ni daanaka nu ko dooree baaxul waaye arbitre bi daa mujj sëgg mu jàll sëgg mu jàll bu ko defee boo boobee bii ah, maanaam match ba wala boog série penalty ba ma nga jeexee ci li nga xam ni moo nekk ah, tiro bi ah, ñaari bal la ñuy rate Barcelone nag dugal li mu war a dugal bu ko defee nag match boobee daal di jeex gardien bi ga xam ni mooy gardien Barcelone bi moom it am ci taxawaay boo xam ni bu mucc ayib la